comme ni nga ko waxee tey bis la boo xam ni bis bu màgg la ci àdduna bi yëpp le 21 juin mooy fête de la musique waaye ñun au niveau de Thiès Ouest ñu ni dañ ci profito sos loo xam ni dañu bëgg mu wëy même bu ñu fi nekkatul mu nekk ndono commune bi mu ñu tuddee ko FESPAT mu nar a nekk première édition festival des peuples autochtones de Thiès loolu mooy lan mooy Thiès dafa am askan yoo xam ni ñoo fi fekk baax ñoo ñu fi fekk baax nag lañu bëgg ñu bañ leen a fàtte ndax nit bu fàttee démbam rek teyam da koy réer te ëllëgam du wóor donc ñi fi fekk baax nag cees boo nee Thiès ñu ne Thiès noonu ñi ñuy tuddee les séeréer noonu ñoom ñoo sos Thiès waaye biñ ko sosee xataluñu tëjuñu bunt yi dañ ko ubbi ba yeneen askan ñëw fekk leen fi muy tugalóor yi muy bambara muy joolaay muy soose yi ak yeneen yeneen i askan yoo xam ne dañ fi ñëw ba tey cees nekk li mu nekk loolu nag jaadu na ñun comme ginnaaw communes yi ñun maire yi bokk na ci li nga xam ni dañ ko sas état sas ñu ko muy mbatit ñu koy wax culture donc loolu dañ cee war a bay suñu waar moo tax ñu ni ñun dañ ciy bay suñu waar ba ñëpp xam ko daaw am na luñ ci defoon test la woon rek mais ren nag comme ni ma ko waxee dañu fas yéene teg xeer bu njëkk ci festival des peuples autochtones de Thiès incha allahu rabbi donc loolu moo waral ñu def lu mel nii ni nga ko waxee def nañu exposition mooy commune bi am na ay artistes yu fi dëkk di def affaire euh, di def tableau d'art art plastique di def peintre ak ay artisans yu fi dëkk ñu jël leen ci suba si premier programme bi ñu ñëw def exposition vernissage ginnaaw loolu am na waxtaan boo xam ne waxtaan bi dañ ko nar a séq ci aar ak culture nan la mën a yenu développement muy askan wu suqaliku jëm ci kanam ginnaaw loolu ngoon incha allahu rabbi fii ci terrain tund wi ci cité Ousmane Ngom fas yéene nañ fa amal euh, fête de la musique célébré waale fête bi wax naa léegi tey le 21 juin donc ñu woo artistes yu bari yoo xam ci commune bi lañ dëkk permettre leen ñu def ay prestation woo askan wi ñu fekkee ko suba nag incha allah mooy daj dëpp gi mooy xolu événement bi mooy ethnie yooyu ma tudd léegi muy askan yooyu ma tudd léegi suba ñooy def seen prestation muy séeréer yi muy tukulóor yi muy joolaay yi muy soose yi muy tukkulóor yi suba incha allahu rabbi ci samedi bi ñoo war a def seen prestation nga xam ni mooy dëppook nag ñu war a tëj festival bi incha allahu rabbi ba yàlla may ñu déwén ak jàmm ñu fekkee ko jàmm loolu daal mooy solo mbir mi loolu moo ñu fi dajale tey incha allah. loolu am nañ ci ay ay piste am nañ ci ay bunt bunt bu njëkk bi mooy euh, bëgg nañ ñoom niñ ko waxee fekk na sax xam nga wolof day wax montre yu baax yi ñoo bokk heure fekk na ma wax sama collaborateurs yi ni leen maire bi dama bëgg ñu décorer ko man am xel waxoon naa ko bu yàgg dama bëgg ñu jënd ay tableau yenn barab yi yenn bureau yi ñu dekke dok décorer ko parce que maire bi dafa war a euh, fii fii la ñuy liggéeyee mais ñi fiy liggéey ak ñi fiy ñëw war nañ bu ñu fi duggee seen xol nag loolu dafa am solo te tableau daar wala mbiru aar day tax nit ki xolam di bëgg bëtam di di di naye et ça c'est très important fekk na loolu ñun ñu niseroon ko donc fekk ñoom mu dajeek ñoom loolu ñu wax noonu kon maanaam ña nga ca ñun loolu incha allah dinañ ko jëmbal euh, je pense que lii li ñu fi gis tey euh, dinañu permettre incha allah ñu ci tolloo bu ko defee ñu collaborer ak ñoom xool yan tableau la ñuy wut en tout cas lu mën a rafetal daal mairie bi ñu xool barab yi gën a am solo ak bureau yi gën a am solo ci mairie yi ñu def ko fa beneen bi aussi mooy euh, am nañ ay partenaires yoo xam ni euh, xam nga culture boo ko waxee li ci gën a ëpp solo li ci gën a jafe mooy financement bi fan ngay jële xaalis pour mën a fexe ba ñi ciy yëngatu mën ci gis seen bopp nest pa pas na nga gis commune yoo xam ne dañ ci def dërëm mais ñun dañu bëgg vraiment bay si suñ bay si suñu waar parce que jàpp nañ ni waruñu toog rek croiser les bras ni kenn mënu ci dara donc dañ ciy jéem incha allah ci jéem boobu nag am nañ ay partenaires yoo xam ni bitim réew lañ nekk bëgg nañ su mbir mii déwén fekkee ñu fi wala at yii di ñëw fekkuñu fi ñu jokkook ñooñu di leen invité ci événement bu mel nii. bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee jonjoog artistes yiñ ñu fi fekk loolu beneen marché la boo xam ni dinañ ko ubbil artistes yi bu ko defee ku ci nekk la nga ca mën a am. nga mën ko jariñoo bu ko defee li liggéey nga mën cee euh, gagné sa àdduna maanaam euh, mu nekk sa gagne-pain parce que loolu mooy seen liggéey ñoom donc ñun li ñu war mooy créer leen environnement ak marché ak ay partenaires yoo xam ne dinañ mën a dugganteeg ñoom ba ñoom li ñuy liggéey ñu mën ko jaay mën ci gis seen bopp donc loolu tamit yeneen euh, jéego la wala yeneen bunt la yoo xam ni bëgg nañ ko ubbi ubbil ko artistes yi bu defee ñoom ñu mën ko jëriñoo incha allah. li nga posé nii dafa dafa sori maanaam pour mën koo amal saafara lu sori la parce que xam nga politique culturelle ak politique sportive état central moo koy déterminer moo koy tënk ñun communes yi comme ay démembrement état la ñu jaar ci yoon woowu mën a doxal li ñu bëgg a doxal donc ba ñuy tabax ay see yi loolu moo ko yanu woon boole sport. ak culture mais dem nañ ba gis ni culture bi dafa sooxe doxatul ni mu war a doxee euh, damay tooñ sax nawetaan yi bi ma leen bi ma fi dajeeg ñoom ni leen seen C bi ay xam nga daanaka association sportive et culturelle man leen seen C bi la lettre C la est-ce que du ngeen ko def citoyenne pour dëggal li nga wax ni culture ñoom yëngatuñ ci ñu def ko association sportive et citoyenne nga xam ni bu boobaa comme ñoom dinañ faral di def ay set setal ci quartier yi di bay école yi. di def yeneen activité ci quartier yi loolu dina dugg ci citoyenneté bu culture bi moom ñu bàyyi ko askanu culture ñi nga xam ni mooy artistes yeeg ñi ciy yëngatu donc loolu lu lu am solo la mais xalaat bu sori la war a doon bàyyee nag ci état central wàcc ci suñun mais daal ñun li ñu xam te mën ci def suñu jéego mooy nawetaan yi ñu ngi leen di taxaw biñ fi ñëweeg léegi seen subvention musul tardé mu jëm ci nawetaan yi maintenant culture nag dañ ci bëgg a bay suñu waar lii ñu def nii wane na ni am na jéego bu ñu teg tey lañ ko teg fas yéene mu jëm ba faw loo donc dinañ ci bay suñu waar ba waa culture gis seen bopp ci maire yi bu soobee yàlla donc mooy piste yi ma la wax ni ñun am na lu luñ ci mën à notre niveau benn marché mais dinañ ko ubbi wuti ñeneen ñu ñëw ko defee duggante bi bu amee rek loolu lu mën na cee tukkee ko te loolu lañ leen yéene mooy seen mbir ñu mën cee gis seen bopp mu bañ a nekk loo xam dañuy tàllal ay loxo di daw ci ay ginnaaw nit parce que dañuy liggéey li ñuy def liggéey la liggéey boobu nag dañ ci war a gis seen bopp te loolu ñun ci lañ nekk pour dimbali leen ci loolu incha allah.